damay ñaan président mu am lucidité ak flexibilité wu bañ a delluwaat revenir. sur sa décision sur sa décision lu mën a jur leneen. maanaam. je comprends bu buñ ne rek. voté nañ ko voté nañ ko dañuy dem jusqu'au bout. Hmm. doo dégg mukk ñu ne ñu ne la gestion wu. kenn ci APR wala kenn ci benn gestion président Macky Sall la ñu wax c'est lui le comptable. Mhm. bu mu nangu kenn ci intérêt personnel am maintenir ko au pouvoir pour leurs propres besoins loolu bu mu ko nangu. Mhm. mais li xew li xew nii eh, eh, xam nga am ñu la koy laaj. ñu ne ñu nekk bitim réew lu xaw Sénégal mais li xew. mën nañu jàpp ne c'est un coup d'état ah. waaw institutionnel. Mhm. mais lii est-ce que mën nañ ko tuddee sax constitutionnel wala institutionnel mhm. mais coup d'état la parce que coup d'état mhm. mooy jël nguur goo xam ne si da nga ko jël par la force te kenn joxu la ko. peuple bi joxu la ko kenn joxu la yow yaa ko jël. ci sa coobara bopp ci say doole loolu mooy coup d'état. xam nga Birima Ndiaye dafa wax lu am solo daf ne le président Macky Sall bu la deux jotee. moom ci lan lay jafando ngir convoquer nit ñi ci dialogue. parce que dootu nekk président. Ah, non doonatu ko. ci lan lay jafandu. Mhm. foofooy problème bi xam nga nii ça ne pose pas problème. Mhm. nii il est toujours le président de la république. mais bu tollee le 2 avril. Mhm. moo tax man may laajte ne président est-ce que PDS tendre ko piège. ngir xajamal parce que loo ci mënta dégg PDS a ngi fayu. li leen benn defoon. ñu ngi torpiller la gestion du président Macky Sall et euh, la gestion de Benno. de manière générale le deux ci lan la président di sukkandiku après pour convoquer ni ñëw dialogue mais c'est très mais li ñu bëgg moom mooy mu continuer même après le 2 avril moom mu continuer nekk président comme président. xam nga euh, mais léegi ba ba le 15. ba le 15 décembre ba le 15 ba sax bañu ñu voté ba pare ba war a ba war a joxe nguur moom def def 10 mois oui. xam nga li xew. Hmm. président Macky Sall dafa loué benn chambre d'hôtel. Hmm. war a quitter suba ci midi. président bi mu waree quitté suba ci midi man ma ñëw taxaw comme client bëgg def réservation. Mhm. xam nga kon man la ñuy teg comme priorité su ma ci génnee maay dugg. si mais man sama dugg. PDS bugg ko PDS daa bëgg occuper chambre bi. Mhm. mais du moment que midi bu président génnee maay dugg PDS ñëw na ko prolongé ba dix mhm. te moomul hôtel bi hôtel bi sénégalais yee ko. lam jeex na. waaw lam fayoon jeex na PDS moomul hôtel bi. hôtel bi sénégalais yee waaye PDS moom yaakaar na ne su Macky génnee 18 ñoom ñooy dugg. man du ma dugg midi. jàpp na ne bu Macky génnee midi man maay dugg ndax man maay priorité ci réservation bi. Mhm. mais de midi à 18h beaucoup de choses mën na fi xew yoo xam ne bu Macky génnee 18h ñoom ñooy dugg. APR ñëw na ko 18 moom guddi na rek fanaanal bala laa mhm. namee nag. <laughs> te kenn moomu ci hôtel bi. instant bi ku nekk yaa ngi teg sa morom xel yaa ngi teg sa morom diil. c'est très très très dangereux. C'est très dangereux ce qui se passe dans hmm? Mais les grands perdants, est-ce que mënul nekk euh, euh, tamit hmm, Amadou Ba est-ce que moom mooy le grand perdant ci ci ci euh, li xew nii yëpp moom bi nga xamante ni déjà coalition bi ko po bi ko bi bi mu porté woon am na ñu si ànd ak moom ñoo xam ne si ni si bëri ñoo xam ne ànduñu wax nañu ko ci kaw am na ñoo xam ne si ni ànduñu ak ñoom ak moom waxuñu ko dañoo toog ak moom. mais moom la ñu bëgg a sax bokk na ci plan yi nga xamante ni tey moom moom la ñu écarter ko tax a jóg oui. écarter Ba. mooy mi. waxoon naa la na la Amadou Ba du candidat de cœur Benno. Mhm. c'est le candidat du système. Mhm. mais il n'est pas le candidat du parti wala de la coalition Benno Bokk Yaakaar. c'est le système qui a imposé la candidature de Amadou Ba le système dans sa globalité. Mhm. mais du candidat wu coalition bi. Hmm. Amadou ah, Ba on dirait qu'on l'a imposé à Benno Bokk Yaakaar léegi nag loolu lañu war a découvrir kan mooy imposé Amadou Ba à Benno Bokk Yaakaar muy benn. mun nga ne c'est le perdant mun nga ne c'est le gagnant. Hmm. donte lim gañe bëriwul. Amadou bu munee politique. Hmm. capital de sympathie buy xaw a xurug nu nànk-nànk ci Sénégalais ci ñu bëri jàpp ne dañ ko humilier bu fippoo génn. mën naa am dara. na am lu mu yóbbaale. mu beru waaw su beruwul nii nii. tapé sur la table fëgg. wane ni dañ yëpp contre moom la. wane ni il a été toujours preuve de loyauté mun na yóbbaale quelque quelque. ça dafay démissionné nag. non Amadou moom fii bu démissionné wul nag yaa xayti mu laa nag wax dëgg yàlla nag. Euh, ah mais démission bi ñu ko doon wax boobu ba léegi ah, ah. Amadou man li ma gëm sax mooy du démissionné. waay <laughs> kañ bu ñu ko dàqul du démissionné waaye nag bu mënoon politique day démissionné. bu génnoon dina bu démissionné woon nii dem. Mm. Mm. li muy yóbbaale moo ëpp bu demoon su bañeeru bennoo ndax li ko doon topp bëriwul. te ñi mer ci ci ñi àndul ci li Macky Sall def. bëri na ci benn benn bokk yaakaar te dañuy daw teg ko loxo. bu mënoon politique day démissionné démb. mais nga Amadou du du de défi. moom mm-hmm. ndànk-ndànk en sous-marin mais bu mënoon politique dëgg day démissionné. woon ak am dara. Mm-hmm. daf may fàttali Macky Sall ak Ablaye Wade. Mm-hmm. kiif kiif la ñëw pale ba ñu koy visité ak yu mel noonu tu te rappelles. bu mm. amut démission woon day am dara. Hmm? <laughs> mënul ko ah, lañ gën a bàyyi xel kay stratégie. stratégie politique yi. duñ koy wax c'est pas nag. ñi ko wërit. oui duñu ay fin politicien. oui Amadou am na occasion historique yoo xam bu ko saisiroon mën na ko jural lu bëri. genn wàll Benno yëpp mun na bàbbee ko fekk parce que Benno am na ñu bëggul PDS dugg. Mm-hmm. am na xam ne bëgguñu bokk ak PDS coalition. bëgguñu bokk PDS. jamais fekk Amadou Ba y compris le parti social. mais le fait mu des ci ci euh, euh, nguur gi ba léegi di wéy di nekk euh, ci benn bokk yaakaar. en tant que Sénégalais yi dañ lay jéppi. li ñuy wax mooy dañ la. déjà boo génnee lan ngay wax Sénégalais yi. Ah, lay jéppi après. man moom àndu ci woon ah, àndul ci ci rapport bi ah. picc yi naaw sax xam na ne àndul ci rapport bi. waaye bu bëggee am gain politique day day génn bu génnoon am dara. mais Benno euh, tamit euh, euh, wax nañ ko léegi ñi si ànd bariwul ci la décision de de Macky Sall. muy reporter élection yi ñu bëri ñu ngi ñu bëri ñu ngi ñu bëri. baaxul sur l'image du ñu bëri dañ doon wax. dañuy sàrdi ñoom Macky Sall la doon sax. ah man de mais après sa déclaration après son discours ñoom ñëpp dañu dañu dañu ko dañu ko. Charles Faye de baalu àq Ousmane Sonko. si. danañ baalu àq tax man la lii la Sonko Mm-hmm. Ousmane fexe na ba moom perception bi mu am ca Macky Sall. ñëpp am ko ci ñëpp am ko ci moom. mais te loolu moom mooy dëgg ah. moo tax démb bi maci ne reporté naa ma ne ah jox na Ousmane sa plus belle victoire. parce que Ousmane nee na sax ay parewul ci nguur gi. <laughs> ba pare na leen. waajul sax pour dem candidat ça kaw lii du kaw. Mm-hmm. Mm-hmm. lii du kaw. si. Ousmane Macky li mu bëggoon perception bi mu bëggoon ci Ousmane. Mm. nit ñi amuñ ko Ousmane perception bi mu bëggoon ci Macky nit ñi am nañ ko. sëriñ bi amul kenn ku bëgg la président Macky Sall bëgg te yàlla tax laa lox mm. d'accord ci lii. dégg nga Aliou Sall son bi mu génnee wax. si moo gën a jege mm. bi Macky dafa amoon parcours bu rafet. c'est c'est démission yi commencé di gis. Euh, d'autres vont démissionner Abdou Latif Coulibaly Coulibaly. Euh, euh, ci waaw tamit secrétaire ak eh, ki nga xamante ni Eva Marie Coll Seck. kaay yilif ñu moo gën kaay ma yilif leen. tu es président d'accord. Mhm. mais président de quoi. d'un pays en faillite. Mhm. investisseur du fi dugal xaalisam. déedéet jamono ji xam nga. des yu mer. Mhm. un pays instable. Mmh. pays sous état de siège wala lu kenn xamul wala li koy nduru forum gis checkpoint. loolu mooy réew. mais quand nit ñi kontaanuñ nit ñi biguñ loolu yilif ko amul sens amul sens quoi président muy neex ngay romb nit ñi di la tàllal loxo nit ñi di bëgg boobu léegi daanaka fo romb ci euh, Dakaaru sur check point fu ay policiers yeeg gendarmerie ñu ngi lu may fàttali oui bi Mauritanie méttee boobu man maa woon noot waaw